mbokki internet yi safo di seetaan info 221 dal leen ak jàmm si mille problème ak xalifa rappeur nag daal di nañu jàkkaarloog juge bi niki démb ci àjuma ji yemoo ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars noonee rek lañu ñu leen di toppee mooy maanaam jibal ay wax yu nekkul dëgg ginnaaw ba ñu waxee ni woon kii di Wally Seck ak ki nekkoon fi ministre bu di Ndeye Astou Sall ñoom ñaar nag dañoo amaloon ab takk suuf noonee rek ci la ñu daal di jàkkaarloog ki nga xam ne kon moo di juge bi niki démb ginnaaw rek ba Ndeye Assou Salo porté woon plainte ak kii di waykat bi di Wally Ballago Seck noonee rek Khalifa rappeur nag ma ngay xam le ni ci kanamu juge bi loolu nga xam ne moo di yooyu lee saaga nag yàgg na loolu depuis deux mille vingt xanaa nekk dafa nekk loo xam ne si nag dañu ko bëgg a yëkkati waat waane nag lu jëm ci wàllum ngànnaay gi nag moom loolu dëgg la parce que nag moom buy génn dafay daal di ngànnaay yu ndax ñi nga xam ne ñoo di fans wàllu Wally Ballago sekk yi nag dañ ko doon menacer lu bëree bëri ba tax rek saa bu daan génn rek dafa daan yor li nga xam ne ko nag moo di ngànnaay pour aar li nga xam ne moo di boppam kii di 6000 problème nag moom ma ngay xam le ni yooyu lee saaga moom dëgg la waaye rek leneen lu ñu ci daal di dolli nekkul dëgg benn yoon ba tax rek ki nga xam ne ko nag moo di juge bi daal di jëlëb dogal ngir daan leen ñaari ati kaso loolu nag nekk loo xam ne nag procureur nag moo ko daal di sàkku ngir ñu daan leen rek li nga xam ne moo di ñaari ati kaso avocat nag la ñu bëgg rek mooy ñu daal di leen bàyyi waaye ki nga xam ne ko moo di juge bi rek dina daal di amalu atte ci fan yi ñu jëm ngir nag ñu mën a leerala problème boobu dox diggante Khalifa rappeur ak kii di simil problème ak Wally Ballago Seck ak Ndeye Astou Sall mi fi nekkoon Miss bu Sénégal